Dent pour dent, Rufus quoi 100%, œil pour œil, dent pour dent, Rufus quoi 100%. chers internautes du portail d'information le Nous ñu ngi am mbégte ak Nous ànd ak 5e cinquième numéro de seen émission Nous kan ñu ngi fas yéene ko ànd ak ki nga professeur euh, mathématique ak euh, science euh, physique comme ni ko waxee aussi mu ngi mu ngi yëngatu ci ben mouvement bu ñuy wax alliance nationale pour euh, développement durable euh, ñu fas yéene ànd ak mom comme niñ ko waxee légui amal 5e numéro bu seen émission yaay kan kon duma def luddul di di di nuyu sama invité te di dalal diko jox mu nuyu mbokk internet yi nga xamante ñom ñoy suivre le louvisquois merci beaucoup asalaamaaleykum rabbi sali saddi wasali am ni waxal waxtaan ñëpp xaw xawli ah, Maodo maa ngi nuyu bu baax di la ziar di souhaiter bonne eh, bonne année 2021 di nuyu waa à bi yëpp di nuyu waa Tëngéej di nuyu Sénégal comme que léegi moom L'information bi c'est mondial maa ngi nuyu àdduna yëpp di leen souhaiter bonne heureuse année euh, di wax ni man la Mame Je Diop professeur de mathématiques et sciences physiques à Charlemagne. Parce que waaw euh, je pense nag pour présentation moom dama amaan du xaw du bëri trop ndax euh, comme tout jeune sénégalais dem na école dem na daara jógee na jógee na daara boole ko ak enseignement bi dem dem dem ba université am bac am d'université dem fac science dem maîtrise am euh, en en PC après venir à ñëw di enseigner fii dans les écoles privées ensuite il est membre dans beaucoup d'associations de développement durable comme si dëkk bi dëkk fi mu jàngee euh, si daara moo nekk secrétaire général euh, mu association Oustaz Soxna Adama Diop am tane amna fi action yu beur yu ñu manifester ngej comme yu mel ay constatation médicale ay don de moustiquaire ak yu beuri beuri beuri mu ngi si won ensuite euh, si euh nek na fon comme d'encadrer jeunes yi am tane mo leen rawon jàppale leen ci ci yu beuri mom dal c'est une personne xam te il est vraiment soucieux du développement durable mon ko ñor le cette même lance, sax mu ngoon mouvement Agir ak euh, Thierno comme que je salue au passage euh, mais récemment ici à Arvesque, bi ñu gisee li fi am l'aspiration pour ay des ak euh, aspiration pour développement on s'est constitué entre jeunes nous avons suñu bir, chercher nit doy il a les capacités il a la connaissance il a l'éthique pour mener à bien ce projet de euh, muy euh, changer changer euh, visage de risque. c'est la mettre en place ce qu'on appelle le mouvement And l'Alliance alliance nationale pour le développement durable am te l'ex monsieur le maire Elad Hadj Amadou Samba moo ko jiite instant bi pour jëm si élection yi ñu incha

ci mairie bi euh, mënee ko euh, ba Tëngéej yëpp yëpp yëpp fo mënti nekk euh, ci quartier yi ci appartenance bo mën a bokk nga nga gis sa bopp sa bop est-ce que vous attendez des résultats positifs. wax on attend des résultats positifs parce que comme on a appelé un changement avant ñu dugg ci ci ci ci mouvement bi tok nañ def ben diagnostic diagnostic ne gënañ a c'est ces mots euh, début de solution début de idée de projet orientation peut-être que c'est pas l'occasion parce que comme que équipe émission euh, en mais euh, contexte mais de je pense inshallah jour monsieur le maire. Euh, wax si comme que moment la personne idéale pour mën si prononcer yi on va seulement dégager les grands axes mais xam nañ daal am nañ si yaakaar ne bu ñu euh, mën nañu développer en un point A yóbbu ko point A plus quelque chose. Euh, hmm, jafe-jafe déedéet sant yàlla parce que pour dire vrai fi ko yaakaaroon ak tey fi mu yàgg je pense que sant yàlla la man je dirais même que les choses vont vont vite parce que tey jii on est dans le terrain on est en train de faire des contacts euh, fu nekk ñu ngi koy dem et avantage bi ñu am mooy euh, am nañ bon retour nit ñi euh, ñu ngi ñuy déglu te ñu ngi dégg tamit parce que nit pa mu dégg te dul déglu mais ñu ngi ñuy déglu ñu ñuy dégg li ñuy wax mu ngi jàll.

ay jeunes euh, yu responsable yu compétent yu yu yu am ben éthique parce que aussi je pense que politique bi tax pourquoi ñu am problème moy ñi fi nekkoon parfois il manquait de de de valeur parce que fa ngay def action doo si seet yàlla c'est si population jëlal si interpersonnel personnel wala intérêt benn groupe euh, groupuscule yoo xam te groupe de personnes rek ñi ànd ak yow ñu mën see jëriñoo nga sacrifier ñeneen ñi parce que lolu moo ñu indi fi ñu toll parce que euh, duñu duñ ko duñ ko neubante te nga am ay nit ñu am xam-xam am ay nit ñu peut idée bi bien vrai que jamono tay day dox science dox ba méthode euh, si si par rapport monde mais ñi fi à leur temps que war euh, quelque chose pour risque mais y avait des paramètres qui ne pas pris en compte surtout euh, gëm-gëm bi ak euh, yenn qualité yi lañu mënewul won a bien. toujours dans le domaine de la politique euh, ban ban ban avis nga am par rapport à la suppression des villes yi nga xamante ne mën nañu la waaw bah, suppression des villes mom foofu je pense que d'abord abord li may naan benn problème la moy wàtt ngi ci bopam ce qu'on appelle les leaders russes quoi ñu war a xoolee seen bopp parce que bu Macky Sall mënee jël euh, intérêt yenen personne te ko si sen kaw ñom pour euh, ñooñu mën am sen euh, assouvir sen intérêt ñom sacrifier leen wala ñoo xala sen bop xam ñom ñoom li ñuy wax leadership amuñu ko parce que bu ñu am leadership mag du taxaw naan dañuy supprimer ville déjà ñom war nañoo xala sen bop surtout ñu ñu bok ci kawam war nañoo tok defaat ben introspection xol ñom lutax lu tax Macky war a jël intérêt personnel moom wala intérêt beneen groupe wa ko mën teg seen kaw ñoom ba war a supprimer euh, ville bi parce que je pense que bu ñu naxantewul Omar Gueye aussi euh, loxo mu ngi si biir il c' est comme si moom moo bëggoon récupérer département bi teg ko si loxoom te boo ko defee ça veut dire que Rufisque département bi ñu nekk nii euh, Rufisque ville bi ñu nekk nii am na si les leaders surtout ñu bokk si mu ak parti bi di toog ak moom di waxtaan ak moom war nañu see wax léegi nag benn côté mooy ñun wàtt ngi si boppam. dañuy def bloc jël suñu appartenance petit teg ko fële lu mu ñu amul lu mu lu jàll nag ñu xeex ko parce que aussi euh, Tëngéej dafa waroon nekk patrimoine mondial la nekk parce que euh, ville boo ne mu ngi si archive ren d'Angleterre boo fa demee ni nga fa gis Tëngéej mu nekk fa mu nekk ville depuis mille cent cent 1900 1880 am histoire euh, am na lu bëri lu ñu daan def Tëngéej lu ñu lu ñu daan def Sénégal Tëngéej lañ ko waxtaanee tey bu ñu on naree jël sacrifier ko pour des intérêts euh, politiciens je pense que c'est grave non seulement ça interpelle euh, la classe politique mais ça interpelle aussi la la population rufisquoise mais sant yàlla je pense que nag am na ay réactions positives yu ñu gis yu yu yu waa Tëngéej di def di ñaan yàlla rek mu bañ a nekk des réactions dispersées parce que bu dispersé aussi du am benn intérêt euh, bu ñu ko boolee daal fédérer les forces mu nekk combat comment ñu boole si waa Dakar ak Thiès ñu war a laal je pense que xëy na mën nañ si génn ba li ñu bëgg ñu am ko. Mm, mouvement bi moom il est euh, on est catégoriquement euh, opposé à cela te message bi si bind post la ñu nekk góom bind nañ ko si Facebook partagé ko si réseaux sociaux wax suñu xalaat wax suñu xalaatu leader aussi si terrain aussi dem aussi ñu ñu ñu ngi ni ñu supprimer ville ville je me dis même euh, Afrique on a trop souffert si nañ ñu départager euh, ba ñu nek ba parce que ay dëkk yu ndaw lañu def tay ville euh, il a même du mal à se développer nga bëggaat tas def ko ay pàcc pàccu ndaw je pense que mooy da ñu da nga bëgg a raaya Tëngéej waa parce que doole mooy mbooloo mooy doole bu ñu tasee du maire noor du maire est du maire ouest mu mën def dara bu Tëngéej déjà ñooñu am nañ problème dañoo yokkal ay problème rek mais suba dara dox. noonu ñoo ngi ànd ak Madiagne Diop di professeur euh, mathématique ci école Charlemagne euh, comme ni mu ko waxee léegi dégg ngeen ko objectif yi nga xamante ne mouvement bi am na ko ak taxawaay bi ñu ci am. Euh, Madiagne comme da ngay yëngatu ci dans le secteur de l'éducation, euh, par rapport à l'éducation sexuelle bi nga xamante jot nañ ko war ko inclure si si si si si école yi nekk ci Sénégal loolu tamit euh, noko encore merci beaucoup je pense que la langue suisse d'actualité mais man je pense que du ma ne enseignement rek mais je mën wax de Sénégal de manière générale li ñuy jàngal xale yi en économie familiale le mu en SVT bu ñu collège je pense que c'est largement c'est suffisant loolu doy na. beneen boo beneen ko éducation primaire bi en si école primaire je pense que euh, nekkatul pour y xale mais pour y xale yi la pour pervertir la population. Les gens euh, que comme syndicat yi le ce qu'on appelle le G7 taxaw nañ mm, opposé aussi ministre bi euh, taxaw aussi ne du am dafa jot nag population bi xam ne parfois bu enseignant di kaas ñu yaakaar ni seen intérêt kese moo la ñor ñu xam ni lii enseignement nag waruñu ko bàyyee enseignant yi kese waruñu ko bàyyee état bi parce que ñëpp si bokk dem doomu baadoolo bi si la yaakaar pour mën tekki ki ki am dara euh, si la yaakaar aussi pour euh, avenir doomam orienté ko ba mu mën yegg seen poste yi kon bu ñu waruñu ko jël bàyyee ko ak benn groupe wala benn entité mu gérer ko yàq suñu population parce que aussi li am boo c'est ça veut dire que euh il faut yàgg commencer. wala commencer wolex fi parce que mon commencer commencé wax genre bi ñu wax genre ça veut dire que ça pose problème euh, bo mënee def ministre de la femme de la famille yoké genre euh, les sénégalais dañu won taxaw wax le moy genre guen wax ñep guen ñu kaasu mu leer ñu xam luy genre mais nak ce sont des choses am ni ñu koy def depuis des années diko ko dank dank euh té nak euh, sénégalais yi parfois dañuy dara ñew ñu ka wax si yaakaar ni jeex na bii nag moom ku nekk sa bo xëyee na nga si wat xel di ci xalaat di xol ba xam ndax projet bi eh, gaay yi retenir nañ ko ndax ñu ngi koy dugulat ak ci ban forme lañ koy dugalaat te luñu tek ñu jëm xol xool nu ñu koy teggee sinon rek nañu xey ben jour am mauvaise surprise ne ne ne dugul nañ ko mais mom sénégalais mom je pense que bii mom

Euh, dañ naan les homosexuels les bisexuels les transgenres gaa yooyu ñu bëgg légaliser homosexualité si dëkk bi am problème mu dugal ko si dëkk bi Sénégal ba léegi euh, nangul adopté loi yi biñ ko fi indi woon si Macky Sall bañ nañ léegi nag euh, comme que population bañ na xam nañ population bi leen moo leen mën a changer loo ñu jaaree ko éducation xale bi nekk xale nga teel kaa jàngal yenn yi am loo dugg si boppam tey boo toogaa 10 ans 20 ans ñëw a eh, légaliser homosexualité du problème c'est une manière de préparer la population ëllëg ñu mën a nangu problème ñun ñoo euh, aussi ñun parents de yi xam sommes bu nañu jël suñu doom doo tax nañu wax valeur euh, parce que li Cheikh Amadou euh, à connaissance égale la vérité triomphe

de ñu suñu ancêtre am noon ay valeur ñu fexé valeur yoy noonu mu baña disparaître parce que li Soxna Diop doon jeexale phrase naan arracher votre patrimoine culturel C'est l'occasion nak ñun Afrique ñu arracher une patrimoine culturel xamni sans lolu développement mom duñ ko def ñi pays bo gis mu développer dafa am sookul boo xam te la base ku mën dem té ñun aussi buñu ñu rek ni mom je pense que wax ji dina bëri pënd bi dina bëri mais du gawa yegg fa jëm

dafa am ñeneen ñuy def défendre war défendre la même cause mais basé ko sur nos valeurs basé ko sur notre religion maintenant Sénégal nag bonne religion dañu yaakaar ne Sénégal bi kese may wax mooy ou bien musulman bi kese may wax parce que quand on parle de religion c'est catholique bi ak musulman bi amul kenn si ñoom ku si d'accord loolu kon dañu war am beneen pôle buy défendre les mêmes causes di défendre li ñaan euh, droit de l'homme défendre yu bëri pare teg ko si religion ba ñee bu ñu waxee

ak quel point jógee si ce qu'on appelle les écoles catéchisme nañu dajaloo waxtaan faire mettre sur les fonds euh, bâtiment ben collectif bu défendre les les droits humains les droits de l'homme mais nag basé ko si si si religion si éthique ak si morale parce que dëkk bu amul morale moom je pense que daro daro mën dem parce que t'as dit bon demain si un dëkk yi ñu naan euh, ki am na jabaru xaj ki takk na xaj ki moom def ça c'est que

parce que boo gisee problème bi moy dañu commencé tiital nit ñi ba nit ñi tit hmm, ñu soulager lépp nit ñi nag gëmatuñ ko eh, fi ñu commencé euh soulager population bi hmm, lañu wone war commencé soulager population bi nak mais nak hmm, nek très strict sur les mesures barrières respecter les mesures barrières fi nit ñi dajaloo ñu tak masque même si du la garanti à 100 sax je pense que dina dina ko wàññi mais bo légui bo boo légui léegi temps yi bo tagué masque sax euh, di dox si mbed mi yaay def euh, phénomène et au lieu que yow nit ñi yow nga yaakaar nit ñi nga nga xool nit ñi nit ñi ñoo lay xool et ça pose problème parce que aussi li ñu jotoon dund ñëpp toog seen kër ñu tiisal leen ba ñu yaakaar ne c'est tellement mortel te aussi de euh, les scientifiques dafa jot nag bu bu problème amatee bu ñu copier les mêmes faits et les mêmes pratiques yi xam ne moom seen dëkk yi nañu fexe jël les informations traité ko à notre niveau xol la mo adapté wu si suñu si suñu contexte euh, pour mën ka doxal parce que aussi euh, pays yi bokkul euh, climat yi bokkul virus bi dëgg la benn la mais suñu génétique am na lu leen wutale ak yeneen ak yeneen kon dafa jot nag bu ñu jotee ay décision suñu scientifique yi fexe dem gouvernement bi jàppale mettre les moyens qu'il faut ñu def ay recherches, tegal ñu des voies et moyens de sortie de crise et et pas à chaque fois ñu copier l'Occident waaw c'est l'occasion nak ñu dox ci côté boobu. Euh, par rapport ak vaccin yi ndax nangu nga bàyyi sa njaboot bu doon bu dee am na njaboot ñu dem ci l'hôpital yi vacciné wu. vaccin bon man moom euh, d'accord ma ci vaccin yi vraiment. c'est parce que nak bu un scientifique bu né d'accord ci vaccin yi dina pose problème bi am tamit moy jangal euh, xale yi ci côté bobu mais dafa fekk ni dëgg la les pays ont déployé des moyens pour tout le vaccin mais aussi. Euh, vaccin bi trouver ko problème xam nga lan moy problème vaccin bi trouver ko essayer ko sur des cobayes bay leen ñu dox dans le temps ñu xol la moy les répercussions la moy les euh, répercussions yu am ndax amna ay ay ay ay li ñaan naan effet secondaire té te effet secondaire yi du nekk ci ben at du nekk ci ñaari at kon tay ji bu ñu génnee vaccin en moins de deux ans bëgg ka euh, joxe nit ñi deug la dina efficace mais le problème moy do xam euh, effet secondaire yi nu mel kon c'est risqué même je pense que c'est même mortel ñu jox population bi euh, buñu mëne dal def dafa euh, basé aussi sur la nature pour wañ yenn yi wala di jarawul li mu prescrire ni chloroquine bi ni ñu ko doon jël di wër ñu fexé ñu ko euh seen vaccin yi nak ñu jël ko téy ko wut ay cobaye ba len suivre leen dans deux 3 ans xëy na peut-être dina mën a dina mën a néew ma nag baaxul mais amaguñu certitude ni amul effet secondaire te loolu mooy problème bi du problème mu efficace na de mais quels sont les effets secondaires dans long terme c'est ça qui fait peur parce que vaccin yi bu ñu ko daan génn day fekk def nañ ay effets secondaires ay cobay bàyyi la ñu dund dans le temps ñu leen di suivre di leen xool di leen xool dañuy vaccin bu jël 10 ans avant ñu koy génne kon tey boo bëggee génn vaccin en moins de 2 ans ça que eh, fi mu war a jaar jaaru fa donc euh, c'est risqué population bi jël ko. Euh, waaw euh, mhm. parce que jafé jafé yi ñuy rencontré moom je pense que c'est structurel le population bi euh, manque de de de soutien population bi mooy pose problème parce que enseignement bi dañoo yaakaar ni école kese la alors que école li muy wax à mes élèves bu nekkee ab 25 pour cent la yem effort élève bi mu ngi si soutien parent mu ngi si communauté bi si la bokk parce que quand on parle d'école c'est l'école de la communauté ñëpp feeñ bokk bu si ñëpp daal defee seen loxo xëy na difficulté yi aussi dina dina dina wàññeeku te si ñu bàyyi buy enseignant bi di kaas ñu yaakaar ni xaalis bi moo ko ñor parce que je me dis que si on a un plan d'action action a que 14 points ou plus les euh, médias ont gagné sur 2 points euh, population bi bëgg sur si pour critiquer euh, je pense que ça pose problème En ce moment, ak éducation de manière générale population bi ñoo ko war a jël daf ko seen yëf xam du ben groupe moo ko gérer ñe bàyyi ñeneen ñi wala ñi ñoo ko moome je manière générale si la wax sénégalais parfois dañoo am habitude

Euh, école Dangu là euh, Ousmane Beng, qui a fait CM2 en fait un certificat euh, ren fort, on a am abri provisoire waaw abri provisoire si école Dangu est ici, ville de Tengue, à quelques kilomètres de Dakar ça veut ça dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans en matière de l'éducation je parlerai pas maintenant des effectifs qui sont pléthoriques pour une classe qui qui une une

dañu gis école bi 1000 élèves te APE bi du 100 personnes ça pose problème pas parents d'élèves yi ñëw bokk si APE yi xool problème à école Nous ñu apprenons leen parce que euh, enseignant moom bu euh, les parents d'élèves intéressé au moins source de motivation pour pour monde de plus D'ailleurs aussi enseignant di sentir population bi seen nous euh, nous donner à fond Et aussi élève bi euh, élève buy gis parent bi un ñëw école

Euh, li fi gën a politique alimentaire bi euh, nit ñi dañu yaakaar ni boo nee euh, pour politique rek da nga war a yor xaasu bëri ay milliardaire wala yu mel noonu ñoo nekk sa ginnaaw ba lu xew si yow la ñu ñëw jox jooy la seen jooy sa sa problème parfois nga dem fi kenn mu laaj la lu fi def ma ko ñun ñu kaw.

ne kii kat bu faloo li ma joxoon dina ko nanguwaat te comme que du ko nanguwaat sa poche kon li xaalis bi nekk si maire bi lay jël dafa delloo ko si boppam te te su boobaa li dëkk bi du du dem waaw euh, dafa jot nag ñu xool kamte ni day ñëw di ñu wax dëgg euh, pour raconter benn anecdote benn euh, leader bu ñu seeti woon bu xaw a démissionné sax si politique bi ñu toogee dotaan ak moom jabaram moo jël kàddu mais moom si boppam. Mm, parce que cette euh, pharmacienne, pharmacien la j'ai pas cité de nom pharmacienne, la dafa ne jëkkëram da ngay bàyyi parce que man sama pharmacie bii nii mënuma euh, su ma toppee dafay daanu parce que bi mu commencé politique ku am médicament indi ko fa pour mu pour mu finance pour mu jënd la médicament bi mu ne jëkkër ji li mënul di parce que man lii laa surloo su ma la ko joxee damay daanu c'est-à-dire que euh, population bi nag ñoo war a bàyyi yooyu noonu euh, li ñu bëgg du suñu intérêt du see intérêt ñëpp la waaw sacrifice la nag la laaj euh, dëgg la nag yàgg nañ ko gis mais dafa jot ñun population bi ñu xam te ni jeunes yi am te ni instant bii nii ñu ngi si circuit bi ak population bi xam te ni am na benn changement génération bi xam ne ki ki sa opéré ñu changé wut de nouvelles pratiques bàyyi les mauvaises pratiques parce que loolu moo ñu sonal politique alimentaire bi politique sociale bi. Eh, yaakaar ne qui rek politique eh, jël ay xar jël ay nag dika maye eh, je pense que nous continuer aussi mais mm, maire bu fi si continue les mêmes pratiques du du du changer parce que les mêmes faits produisent les mêmes effets voilà problème bi problème de communication de compréhension politique c'est c'est c'est toujours social moy problème mais à je pense que nous sommes cibles cible euh, demuñu directement si si si politiciens comme on dit les grands politiciens de a vu quelques leaders mais on s'est trop focalisé sur la population au moins pour faire passer l'information pour une information mondiale, Nous jàll une population d'accueillir. aussi on vise aussi la les les jeunes et les femmes am te ni ñoom développement bi mais ngi noonu ñu ngi ko gis Madiagne waaw mu ngi topp ci ginnaaw El Amadou Samba ñu bëggoon mu ñëw tuuti ci moom euh, ak aussi ses ambitions yi nga xam te ko dans le département de Rufisque bala ñu tecc suñu émission ndax li ñu desee ci ci ci temps barétul euh mën nga ñëw tout ci lool waaw ah, au nom du mouvement ànd bon dix ni El Hadj Amadou Samba la ñu jiital mu nekk euh, un fils du pays un fils du de de Rufisque. euh

je pense que kon koku amna amna ben na religieux bo am te ni rus na wara job meuna def euh, yenn yi motax ñun jeune yi ko jiital parce que li fa am euh, je pense que fi je pense que changement bi fi bi ñu noté fi moy ay jeunes ñoo constitué mouvement gis ay nit def ben sélection tan ko si jël ko ne yow lañu bëgg nga jiite parce que aussi xol nañ parcours xol euh, xool compétence am parce que il est directeur de la coopération

li gars yi daan def je pense que yàgg nañu am dara génn dem Tëngéej ay moom ba mu amee ba léegi mësul nangu génn Tëngéej il a fait de beaucoup de quartiers mais quartier yëpp Tëngéej lu mu metti metti benn anecdote nee na benn jour il a euh, xëy na Tëngéej 8 heures yegg Dakar je pense 16 euh, heures alors comme xam nga kon loolu metti na mënoon na ñu jël benn kër Dakar toog fa mais euh, guddi guddi Tëngéej bi ñu gisee yooyu yëpp nag. on s'est dit que voici l'homme de la situation Mais nous, en tant que jeunes ñu engagé wu comme que politique doxal doxal ak wax nañu ànd ak yow dugg si dëkk bi euh, wane la fu ñu xam fu ñu dégg ni ku baax ñu seeti la waxtaan parce que on veut réveiller la masse critique parce que gars yi dañu yàgg ndax naan politiciens yi mooy ñooy voté ñooy fal alors que population bi nekk seen kër toog ñooy fal ñu nag on va vers la population wax leen suñu aspiration wax leen bu ñu jëloon tey ji maire bi ni ñu ko fas yéen Eh, te waxuñu ne nag ñooy topp suñu ginnaaw damuñu fenn ne la dañuy def nangama nang dañu ne la ñun eh, dañuy ñëw ànd ak yow waaw mairie ville lañu bëgg nag mairie ville la grande ville la la mairie parce que eh, li ma waxoon sànq au début mairie nord kese mënul dara mairie est mënul dara mairie ouest kon boo bëggee mu am benn impact da ngay dem si si kaw xam ne boo defee da nga mën a impacter fépp moo tax ñu viser la mairie ville di soo di soo nag tëngéej les enfants de de Rufisque képp koo xamante développement moo la ñor nga ñëw ñu ànd liggéey parce que comme suñu mouvement bi ni mu ko nu mu alliance nationale pour un développement durable euh, cycle bi sa ça fait and, and en wolof and bu mooy dañu woo ñëpp ñu and, jëm si élection yi ba mën changer visage du parce que aussi Tëngéej am na histoire histoire bi aussi ñun suñu wàll mooy ñu fexe ba suñu doom yi ñëw ak suñu sët yi am nañu fekk té buñu ko continuer nii je pense que da fay disparaître té buñu ñu je pense que da melni dañoo dénkoon puso bi mu réer suñu loxo té waruñu waaw suñu maam yi suñu papa yi am luñu fi defoon kon ñu aussi war nañu am luñu bayyi suñu sët ak suñu doom yi lool lool dal ambition boobu dal ak euh, lool mo ñu gën a motiver ba ñu euh, pourquoi nag ñenn ñi euh, ils veulent vraiment créer problème pour affaire ou parti mais ñun on appelle tout le monde ñëpp lañu ñu woo moo tax sa ñu créer mouvement.

parce que buñ ko defoon nak ñu and ak ben ben ben ben ben parti wala ñu bot ci ben parti eh, dañ gis kenn ko bëgg ñëw sax parce que l'homme dina ko neex mais coloration politique bi mu nekk moy doon barrière bi ba ba du mën ñëw man nag ci ça nak on veut élargir euh, yaatal ba ñëpp mën gis seen motax moo tax ñu créé ànd bi di si ñëpp nak képp kuy tëngéej doom tëngéej ñu nekk ci tëngéej fi nekk ci biti nekk ci diaspora bi ñëpp on les appelle ñëw euh, ñu mëne combat bi parce que du suñu xeex kese de ñun on veut changer de de de paradigme changement total paradigme ñu bëgg def nekkatul ñooy nekk si kaw di jiite mais penco li li parce que on a dit que ñun aussi dafa jot li gars yi dañu gëmloo ku ñëw ñu laan libéral nga euh, social nga non non dañu ñun suñu principe suñu valeur la ñu war a basé ko développer motax ñu app woote penco. Pencho aussi parce que tënk euh, Sénégal lu mu am c'est dans la place Peu la ñu daan discuter ko te amoon na ay résultats kon pourquoi pas ñun aussi ñu bëgg yor dëkk bi euh, ñu doxalee ko non. di def les pour lu xew ñëpp di def si te aussi mu nekk communication mon tani, ni ki que si kaw day mën a waxtaan ki nekk si suuf ki nekk si suuf aussi mën a waxtaanee que kaw comme ça ñëpp nañu sant seen seen bopp parce que nous aussi lu mu sant boppam da da da ko def jëf bu sentir boppam dafa jëm dem këram toog te loolu moo baaxul di woon ak ñëpp bu nekk seen kër toog ñu génn ñu nekk seen bureau yi ñu génn parce que aussi euh, nit ku am as tuut yaakaarul si politicien dara mu def politique moo gën a yomb mu xam te ni jàpp si dara parfois ñu ñu la euh, jënd la xaalis euh, boo amulee tuuti éthique day yomb mais ku am lu mu jàpp xam ne li may def nii dama kaa war a delloo dëkk bi parce que dëkk bi moo a def li ma doon dama ko war a delloo dara ñooñu xëy na buñ buñ buñ leen joxe xaalis nañu nañ jël lam moo war a dëkk euh, ko dëkk bi euh, képp daal ku am ñëpp daal kenn kenn kenn ouvrier euh, intellectuels toutes les couches parce que aussi ñëpp lañ soxla waaw parce que dëkk dafa dafa dafa ñëpp

il y a je pense que c'est possible ah, parce qu'on a une population qui est jeune on a euh, la population euh, la moitié partie est active terre trop mais je pense on a toutes les potentialités pour développer je pense que nous euh, avons début de solution Nous mën nañu mettre les les bases mettre defi que si rampe de développement Mais kenn nous fi aussi doo mën a euh, tu es obligé de continuer parce qu'il que a dëkk yëpp loolu moo fa am waaw comme on parle de développement ça doit commencer à la base ñu nekk suuf ñoo ko war a soqal war ñu xal lépp nag si état bi de commune ku nekk euh, dafa sa commune euh, département, sa département dafa sa ville après région de defaru Sénégal je pense que su euh, aussi aussi pour dire appel appel le président de la République Euh, ak muy moom ak keneen ku fa ñëw war nañoo dépassé nag niveau boo ni danga naan man maa nekk au pouvoir mairie bi nekk benn dëkk euh, bokk soo parti ma ko war bloqué war nañu dépassé état boobu état d'esprit boobu noonu bu ñu jàppee ñëpp daal état bi Sénégal mooy moom moo leen ñor euh, war nañoo liggéey ku nekk li nga war liggéey parce que aussi ku liggéey li nga war liggéey ah Sénégal yi nañ la ko delloo waaw nañ la ko delloo kon jarul xeex nit. pour euh, pour mën bloquer ko pour léew li nga am nga nga def ko parce que daal euh, bu ñu yaatalee Sénégal ñëpp ko bokk te ñëpp am nañu rôle bu ñu rôle a mën a jouer ñu permettre ñu jouer rôle boobu parce que euh, c'est tout bénéfique pour le pays. loolu jox ki nga xamante ne moom moo nekkoon suñu invité di Madiagne Diop comme ni mu ko waxee bokk ci mouvement ànd ñu ñu koy wax alliance nationale alliance nationale pour un développement durable aussi comme nous ko aussi mouvement bu nga mouvement agir bu de passage il est toujours il est toujours connecté il est toujours en lien avec le refusca.info. donc ñu koy de passage diko diko diko diko diko ñaanal yalla que ma émission bi ngi lan say yu comme fi nga fi nga rek di c'est un ami c'est un frère di nuyu Fula di nuyu Abouli équipe yëpp maa ngi nuyu deen ziar di nuyu waa ànd bu baax a baax baax di leen wax ni euh, combat bi du yomb mais c'est possible dañ ko gëm c'est possible bi souhaité waa Tëngéej année 2022 bu bu neex bu barke euh, projet yi ñu entreprendre yàlla mottali ko taxawuñu ci biir ak ci biti euh, di di nuyu baax waa Rufisque Info di wax ni ñu ngeen suivre bu baax ñu ngi top seen publication yi defal aussi seen émission yi euh, di wax kaw sa kaw sa kanam euh, di len souhaiter bien des choses à vous et, et à la télé et aussi à, au, au RIPS quoi et Sénégal de manière générale. œil pour œil, dent pour dent, Rufisque quoi, 100%. œil pour œil, dent pour dent, Rufisque quoi, 100%.